waaw euh, mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant man la El Hadji Assane Top premier euh, responsable Dekkal Ngor depuis 2009 ma andone ak président Macky Sall nekkoon ab maire ci biir Thiamène tey si tey toroxal nañ ñu euh, lu nekk def nañ ko man nag personnellement man en tant que Assane Top maire de la commune de Thiamène bi nga xam ne tey maa indi président Macky Sall Thiamène depuis 2009 man bàyyi naa parce que toroxal na ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey si tey recevoir nañ maire yi bañ ñu recevoir ñi nga xam ne ñoo fi nekk te man sawaruma ci woon sax. parce que APR yaakaar Benno Bokk Yaakaar nekkatuma fa. bàyyi naa ko kan moo nekkoon fii. kan moo nekkoon fan Amadou baa mooy waroon a recevoir te man d'accord moon sax pour mu recevoir ñu parce que xam naa ne dañuy am déception man nag bés ni ki tey man Assane Tall maire de la commune de Thiamène bàyyi naa APR yaakaar bàyyi naa Benno Bokk Yaakaar ñun liste parallèle yëpp a ngi taxaw ak coordonnateurs yi nga xam na ñoo nekk ci département bi ñu ngi nii léegi nag jël nañ suñu responsabilité man nag en personne APR yaakaar moom ak benn bokk yaakaar bàyyi naa ko bés ni ki tey. Euh, asalaamaaleykum euh, mbokk yi man la Bamba Dieng coordonnateur des listes parallèles du département de Louga nekkoon candidat ci commune bu mbéjéen ñun nag audience bi sunu yoon nekku ci woon ñoom ñoo ñu woo Cheikh Diop Mbaw chef de cabinet Amadou Ba moo fek may tëdd di yewoguma 7 h du matin jeudi mu wo ma téléphone nema ma ma tous les listes parallèles ma recensel koko ak toban am ak kenn ku ne fa mu ak kenn ku ne fa mu nekk mu mu ne ma envoyé mako ma envoyé ko ñu waxtaan ñu jël muy jël note ben par ben wo ma ne ma premier ministre da leen a recevoir Dakar way da leen recevoir Louga légui saye ñew leen ma daal di dugg ci sun groupe WhatsApp bin bok wax ko ñëpp ne leen kët chef de cabinet Amadou Ba nee na dañuy recevoir na na ñëpp ñëw ñëpp daal di ñëw fii sa euh, vendredi fanaan fi samedi ñu fanaan fi ba tey jii tey la dimanche ñu sànni fii kenn faalewuñu kenn xoromaluñu ñun nag ay maire ak yooyu loolu administration la administration ñooy defar dëkk waaye nag euh, lu lu nga xam si ne ñooy mooy li ñàkk officiel li officiers li mooy responsable politique yi ñoo mën a fal ab candidat ab candidat buy wutum réew nag di toroxal nit ña ñun loolu mënuñu cee d'accord lu waaye lu gol a xam na bootee doomam coordonnate liste parallèle yu ci bari ñibbi nan ñii mer nan ñun ñi ñoo fi des def point de presse bi ak coordinateur yépp ci département bi lu lu xam na boté doomam bu bis ba liste parallèle moy ñi nga xamante si ne danoo ci commune état joxu leen financement ba euh, parti bi parti bi nekk joxu leen joxu leen xaalis pour ñu dem ak seen moyens ñoo dem ak seen moyen bopp compétir pour bëggona gagner mairie ba gagné wuñ ko def parallèle ci commune ba nekk lool moy liste parallèle ñu dajal leen ñom 40000 voix légui nak Amadou Ba ak ak njabootam def nu jëf ju sew te nag li ci gën a bon mooy ànd ak ñu arrogant ñoo xam si ne boo nee leen respecté wu ñu wala res wala considéré wu leen ñu ñu mer waa nit considéré woo ma lu ci nit di mer ñu def nu jëfeñ ju ñaaw joo xamante si ne kenn mënu koo expliquer bis na ko tey nag ñun lu waaye xam na lu gol xam na bootee doomam bu bu dimanche te ah jëfin jooju mooy ah? dan woo ban ñëw dafa mel ne ñoom dan noo dan noo dëggaloo dan noo defaloon coup d'état dan noo defaloon dëgg sarax woo nañ nu ba ñëw ñu toroxal ñu mooy recevoiruñ ñu ba pare ànd ak say say say sécurité ñu nane genn leen fé dem leen fé kenn xamul loolu lu mu doon te ñun ñoñu ko digoon. légui lu ngeen décidé ñun liñ ñu décidé mooy lu lu golo xam boté doom fu way neex dafa jëm bu dimanche ci ngone ah, ah, ah, deux mille dimanche ci ngone dimanche ci ngone ku sangu ba set liste yi bari na xolal fu la neex nga wote ji consigne bobu lañ joxe. sen nombre bu ko bëggoon a xam ñaata la ñaata ngeen. ñun ñun am nekk nañ presque 23 personnes. yoo xamante si ni ñu ngi ci département bi. nombre bi yëpp nombre bi yëpp. am na ci ñu dem ca Bougane ñoo xam si doon nañ wax ak ñoom am na ci ñu dem ca PDS ñoo xam ne xëccoon nañ leen ban d' accord bëgg a ñëw. ñooñu ñëpp nag dellu nañ amoon nañ 47000 voix dans le département de Louga. kon dañoo jàpp ne APR ñàkk na 47000 voix. ñàkk na ak lu ko topp. ci département wu Louga. jërë jëf.